وسالمين من كفاني صدمت سعادتي إن الإله إلهي لي سارت إن شيء الملاي لم ينوني إن شيء أموري سوار باخ لو أموري تعالى لله لدى أهل الكتاب من سخاوة ومن كل القذاب أكرمني إن ذا الإدراك من غاد لي إلى البدراك نجيت بيا نصير يا ولي كفيتني إبليس inda jeewali naaje toon biya nasiru ya wali kafaytani iblis inda jeewali man sakka fi kawnimni abdillahi muhammadun noran wala falayi hasa rasulillahi hasa rasulillahi hasa rasulillahi hasa rasulillahi ma lam yahlami inna lasi xaata boo bi kallimi muhammadun fardun yafooxu tasniya wa faaxa jaman wal xadaaya muxniya man sanna annal muntaqa misun wara man sanna annal muntaqa ginnaaw ba ñu musloo si seytaane mi ñu rëbb mi ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala gën gi sant jullit ci nabi Mustafa waaye gërëm cheikhul xadim gën gi gërëm tey jii di le 5 septembre 2020 le 5 septembre 1895 kon 125 ans diggante ba sëriñ Touba defee acte bu héroïque ba mu def ci bureau bi nga xam ne moo nekk ci Ndar ak léegi yàlla dogal ñu daal di jóg tey le 5 septembre ci ndigalu sëñ Mountakha Mbacké nga xam ne moo ñu digal ni màggalu ren gi nañ ko màggaleeg ci ay jàng alxuraanul karim wàcce ay kaamil sunu borom dogal. ñu def ci lu toll si ñaari junniy kaamil ak ñaar téeméeri kaamil ak juróom ñeen fukki kaamil ak ñaari kaamil démb ñu tëj xatma bi tey si suba imaam ratim barkeelu si ziare Serigne Touba ci grande mosquée de Saint-Louis ci ubbeeka kaamil boo xam ni moom lay ziare Cheikhul Khadim ñu si ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñuy sant yàlla bañ fi fekkee suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi jógee ba Louga dawal seen oto ba ci bërëb bii mu leer leen ni sëñ Tuubaa jaaroon na fi ñu toog di dundal bis bi ci jàng seen alxuraan def seen salaatul ala nabi jàng seen xasida mbokk taalibe bi doon yëkkati léegi ci ñoom la bokk ñu leen di ziar ci bis bi nga xam ne ñoo ko bokk di wax ni sëñ tubaa de luga rek la deqee ñëw Ndar kon ñoo bokk bis bi ndokkuwaay bi ngeen ko xamee ngeen ñëwal seen bopp ñu ci ñaan lépp luñ ci sëñ Muntaxa dënal ci kaamil yi mu wax ni nañ ko ko jàngal màggale ko bis bi yàlla nañ ko bokk yàlla nañ ko bokk ndaxte yàgg nañ leen a wuy si kat ñoom ca jeewal ñu doon suñuy partenaire sëñ kew wadd bokk na ci ñi nga xam ne moo taxawal seen màggal googu ak magi murid kon boog Louga mooy fii rek sëñ Tuubaa ma nga jekk euh, deqe le 10 août 1895 ca jeewal ba mu fa demee nee nañ si istixaaram daje na fa ak soxna su baax suñ doon wax soxna njéeme ba moo ko may ndox mi nga xam ne ci teenu sayaan bi la ko jindee mu yeesal si mu jàppaat si parce que Sëñ Tuubaa day yeesal rek waaye mu sa teqli koog njàpp ba mu ko defee ba noppi ni ko am na noo tudd mu ne ko njéeme ba mu nekk tubaab yi de dañ may jéemal waaye jéem jéem ba kon foofu la xewee ma ñëw naa ba foofu jaar naa waa kër soxna njéeme ba ci turu kuréel ñaar rakka yi ba mu jógee foofu le 12 août 1800 euh, le 10 août 1895 mu fanaan jeewal le 11 mu deqee fa jaar kokki le 12 si fajar mu egg si Louga si takkusaan mu daal di jañe Louga egg si Ndar le 12 août 1895 le Serigne Touba egg si fii ndax euh, Ndar si jamonoy marax ba mu eggsee tamit mu dal fii nga xam ne mooy actuelle école Xayaar Meng mu nekkoon l'école des fils de chef parce que sëñ Touba ak Ndar taarix bu yàgg la ñëw na fi juróomi yoon ëpp na suñuy nopp waaye dégg nañ ne ba muy am fukki at ak juróom-ñett la njëkk a ñëw Ndar ba muy am fukki at ak juróom-ñett si lay sëñ Touba njëkk a ñëw Ndar kon bañ ko jàppee nag moom dañ koy yóbbu woon ci fi nga xam ni mooy actuelle école élémentaire Khayar Meng mu nekkoon l'école des fils de chef intendant ba c'était un interprète arabe ak français mi ngi tuddoon Ahmed Khoury Sène différent nag de Ahmed Khoureichi parce que ñu bëri dañuy xaw a mélanger tuuti euh, histoire bi waaye boo demee archive nationale di nga fekk Ahmed Khoury Sène intendant de l' école des fils de chef foofu lañ téewoon Serigne Touba kooku moo fa nekkoon Ahmed si nag dafa doon nitu yàlla bu màgg sëñ Moussa Ka li mu wax sa mooma at sa la jaar ca Ahmed Khoureichi ndax lu mu càllaloo ca ñooñu Khoureichi ba muy ñëw. fekk na Ahmed Khoraichi wàcc liggéey bu yàgg année bi Ahmed Khoraichi di wàcc liggéey c'est bien avant 1895 dem naa ba si waa këram ba waxtaan ak ñoom ñoom ñu dëggal ma ne Ahmed Khoraichi fekk ko fi sëñ Tuubaa fekk ko fi muy dund waaye sëñ bi nag moo xamle bërëb ba digle ñu jaar fa di ko ziyaare kon la sëñ Moussa Ka waxoon am na ba léegi jaar na si Ahmed Khoraichi ndax la mu ñëñ la mu càllaloo si ñooñu Khoraichi mais Ahmed Khoury seen tur yi dañu xaw nuroo Ahmed Khoury seen moom moo fa nekkoon foofu ba mu fa nekkee it fële que Eumeu Ndiaye maa bay fekk parce que am na ñu ni mi ngi ko fekk jàkkee zinc waaye lu tax ñu gën a jàpp ni foofu la ko fekk sëñ mu Ka dañuy Eumeu Ndiaye maa bay la woolu mu taax te yaakaar naa ni jàkkee zinc jamono jooju amul taax kon par déduction da ngay xam ni kon taax ma mu newoon ci instant boobu mooy lekkool des fii de chef ba mu ñëwee tamit wax ka Eumeu Ndiaye maa bay lan moo fa xew. dañuy def ko fekk muy julli mu toog ca wet ga ba sëñ bi sëlmal ni ko ana kooku mun ko mën la mun ko mën la day dolli laaj mun ko mën la ëmb njaay maa béy mun ko ahmadu randu sil sëñ ëmb njaay maa béy jige si mun ko ana lu doon say tànk mu ni ko ah ñun waa ndar kat dañoo jàpp ni bis bu ñu toogee ba tubaab bi yóbbu la te ñun defuñu dara te nu ñu xamee ndar ci diine kon ab jam-jam la ci ñun ma seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa ndar ñépp bind siñe pétition bi ñaan tubaab yi ñu jéggal la ba ma demee ci tubaab bi nag nee na ma yow boo bindee signé ma jéggal ko sëñ Ama Njaay maa bee nee na leeroon na ma ni Ahmadou du bind du signé waaye ma wasu si àq rek mun ko Ahmadou Njaay maa bee mun ko labay ko mun ko Ahmadou Njaay maa bee labay ko ba mu ñetti yoon mun ko dama li ma jaaxal mooy ki tooñ ak ki ñu tooñ nga dem ci ki tooñ naan ko jégalal ki nga tooñ bu jégal dee am dama yaakaaroon ne ki ñu tooñ mooy jégale amu njaay maa jeey xaacu ni teqet di jooy ni ko lay sëñ bi wax nga dëgg mu bàyyi ba mu jooy ba ay rangoñam fer mun ko jegesil mu jegesi mu fekk ka mu bind asiiru maa la abraari inaka asiiru mi ngi ko fekk mu bind ka ba nga xam ni suuf la def ci kayit yi pour weere ka mun ko jottali ma këyit yëlee mu jotli ko ko mu ni ko jàngal baat yi mu jàng ko en français mooy au moment ou je marchais je marchais en compagnie des vénérés alors que les ennemis eux croient que je marchais en leur compagnie j'ai eu le privilège de marcher en compagnie de vénérés par la grace de Dieu et par la baraka de son profet l'auguste Mohammed sallallahu alayhi wa kon ba mu ko ko jàngaloo ba pare mun ko karmat ka nga téye ko seede nga fi damay liggéeyal Moustapha dinaa fa dem ba ñëw te doo fi faatu sëñ Ëmma Njaay maa bay karmat loolu set ans huit mois ak li ci topp mu dégg ni Serigne Touba wàcc na ci pooru Ndakaaru ñu ngi koy jé dugg mi ngi jég dugg saxaar jëm si waat Ndar sëñ Ëmma Njaay maa bay ni daw ci gaalam ya di seet la ko sëriñ Touba joxoon di ko seet ci gaal ya di ko seet ci gaal ya ba gis ka génne ka génn ci mbedd Ndar yi parce que kaadi la woon waaye imaam la woon du doon un notable bu waa Ndar respecté woon waaye daa génn mel ni ku teqalikook sagoom jël mbindu sañ tubaay yooyu mu ko joxoon naan moo ko waxoon moo ko def moo ko waxoon moo ko def moo ko waxoon moo ko def nit ñëpp jàpp ni moom mii kat dafa teqalikook sagoom waaye doole sëñ Bàmba moo xajul ci kenn nag moom moo tax mu mu demee noonu kon foofu dinañ fa egg léegi nii mooy école xayaar Meng waaye pour ñu tënk rek fii ñu ne si jardin d'essai wax nañ léegi li fi xew mooy fii lañ ko boole woon ak gaynde gi waaye bërëb bi mag ñi nettali nañ ni bërëb bu sëñ bi bëggoon la daawoon na fi ñëwal boppam daawoon na fi julli daawoon na fi bind daawoon na fi jàng am na ay jamono yoo xam ne boo xoolee branche yi ni mu ràbbale ràbbale woon dafa meloon ni ku bind ay araf ci alxuraan am na ñu ne Mouhamed daawoon nañ ko si gis ñeneen yi ne daawoon nañ gis la ilaha illallah mais jamono jooju man gisuma ko wax dëgg yàlla fekkewu ma ko mais jamono nee nañ branché dafa rabbale woon bay bind ay araf waaye luñ ci mën di xam daal mooy bërëb bii fonk nañ ko ngir cheikhul xadim li mu fi jaaroon fii bañ ko jugé le 5 septembre 1895 ba pare fii lañ koy indi parce que dañ ko wàcce si cellule boobu nga xam ni moom la ñuy dem ci gouvernance bañ ko wàccee si cellule boobu kenn xamul fu Serigne Touba nekk tubaab yi jàpp ko définitivement maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Méridina maam Cheikh mooy def investigation di neexale di neexale di bañ ni ko mi ngi toolu buur mooy jardin dese fii maam Cheikh soog a xam le ni mi ngi toolu buur sëñ tubaa nag nee na bu ma nettalee li ma daj ndar du ngeen bëgg a gis tubaab kon fii. lu ne daj na ko fi ngir rasulullahi kon ci tënk rek loolu lañ amoon ci luñ ciy barkeeloo. fësal ndigal gi ñu sëñ Muntaxa joxoon ci Touba ni mooy moytu dajaloo bi dajaloo bi moytu nañ ko mesure barrière yi gouvernement bi teg respecté nañ ko tam kaamil yi mu waxoon tam jàng nañ leen ci lim bi deux mille deux ci mille 2291 yi bu ànd ak li ko wër ak waa Kébémer Kébémer jàng nañ ci 58 kaamil mm-hmm. suñu mbokk yooyu ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax tey imam ratib bu dëkk bi bu nekk sa grande mosquée noor bi bien vrai que bien vrai que diw murit mais dafa barrière confrérie yi dafa ko jéggi maanaam jéggi na barrière sarti gars teg barrière mm-hmm. yooyu mm-hmm. diggante murit tijaan xaajir ainsi de suite tey mi ni moom day defal kaamil sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmed Tidiane Diallo la tudd loolu ñu koy feeñal pour suñu Muntaxa jot ci ndax taxawaay di gënul rafet loolu hmm. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo daal loolu def tey waa jàngal na kaamil sëñ Tuubaa hmm. waaw ñu koy sant di ko gërëm yii ñu fi yëgati nag ay kaddu Ahmed Fall la waroon doon mais dafa am ngant di am fu mu dem moo tax hmm. Moustapha Jaxate taxaw fi ak man mii Lamine Gueye ak Amadou am Moustapha Ndiaye ñu représenté fi kuréel ñaar raaka yi ñëw bi hmm. teewal fi amet mi nga xam ne moo amee kuréel bi moo amee kàddu sëriñ bi tam ñu ngi sant ndam ñii ñu fi fekk waa Louga yi ñëw xam ne ñu ak ñoom benn nañu hmm. Moustapha sax junñu naka léegi hmm. ni kuréel ñaar raaka yi ñoo taxawal kuréel Louga bi jeewal mooy Louga rek ci seen màggal yu jëkk affiche yëpp ñu ñoo ne ko daan naa ndaw su ko président ma dikkee defee ba pare moo koy yóbbu ñu ngi jaar Pape Codé Lo ak ña fa nekk yëpp ñëpp ñu ngi leen di jaar Louga ak Ndar presque benn la waaw ñu ngi leen di jaar bu baax